comme ni mu leen ko waxee rek bu ko fi bu ko jàppoon ne da koy jugé du tal liggéey. at bi yëpp Adji Sarr la ñuy wax aji saar Adji Sarr Adji Sarr dina wax ñu dem jàpp Mamour Diallo Adji saar waxaat ñu jàpp Gabriel Kane Adji saar wax ñu dem jàpp euh, euh, Kaliphone te Sénégal kaa rek la ñu bëgg Adamo nekk ci ñëpp nekk ci kenn dootul tal liggéey mais Adji Sarr nañ ko bàyyi mu dem foofu toog fa loolu punition la. billaahi wallaahi taalaay waxoon nañ ko di nga yàq sa àdduna yéen aji saar li ko dal est-ce que xam ngeen ko xamu leen ko de depuis deux mille vingt et un aji saar mënul dem marché HLM 5 jënd comme morom dem rek laa ànd ak soxna dem marché HLM 5 xale yu jigéen yaa ngi ambiance bi fa nekk dem di jënd rek aji saar mënutu ko ba mu sobee ne day génn. dem benn boîte dañ koo ramas yóbbu ko kaso Adji Sarr dafa toog bi am dépression ñu dem duñ ko xaalis mu sonn taal kër ga Adji Sarr dafa mujj taal kër ga dem ba dof Gabriel Fane ne ni Adji dof na yéen xale boobu li mu defoon suñu ak moo ko daal ak ku suñu ko doon dof na fi taal na fi kër tëb na fi miir daanu tànk bi am problème yéen a ngi rappelé yooyu Babacar Touré waxoon nañu ko tey Liko dala gëna metti gën a man xam ci dara li dal aji sar mo gëna metti man xamna ci dara parce que man immigré la ñu génne la sa réew yóbbu la ci réew jambour réew bu set xol leen ma ngi ni ci naaj bi une heure de temps sama yaram lakul dara parce que le climat sénégalais est parfait aji sar liko dal dañ dafa gàddaayu ma génn naa way so way molaa bi ma ngi koy waaj sonko ko sonko sanku sonko ak sa parole sonko ko sanku sonko sonko ak neex far mola mo sonko sonko sanku maître diouf sonko sonko danu kalifon sonko sonko xalangu waye aji saar dafa sonko sonko gadayu mané adf songu sonko djoutu xam ngeen kuy adf aysatu diop fan songu sonko djoutu euh, farba ngom songu sonko juutal aji sar songu sonko gàddaayu xam ngeen lan mooy gaday laaj leen ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam. nga genn sa rew c'est la pire des punitions ñun Sénégal rek lañu ñu am laaj leen ma man limay may ci bato bi billahi limay ci bato di liggey chaque jour ngay sétane Sénégal gis mbedd yi nit ñi di dox

day waaj dem euh, procès ñu jëlaat ko te foofu ay 200000 lañ koy jox 300000 papam bi ko doon défendre lan la ci am da ngeen dégg ñu ne jël nañ ko kër ñu naan ma Adji Sarr am na restaurant am na restaurant ana restaurant ba bu dee am na restaurant daw na bàyyi ko fi. li ko dal punition la gis nga sa réew bu ñu la fa génnee Ousmane Sonko loolu bu mu ko yëgee moom mooy sa boppam moo naan génne leen ko réew loolu c'est la pire des punitions parce que xam nga fa lay mujj. mi ngi ci appartement moom Ndeye Fatou Diagne. loolu la kiy wax Coro Mandela da nga yaakaar ne waa APR am nañu xaalis di fayal Adji Sarr appartement 1000 euros mille euros chaque mois amuñu ko dañ ko fay dugal un mois deux mois dugal ko papier asile buñ ko dugalee ba ñu accepté papier rek dañ koy jël yóbbu ko ci foyer xam ngeen foyer ñan ñoo fa nekk laaj leen immigré ak nit yoo xam ne ay africain wala ay ay tubaab yoo xam ne amuñu fu ñu dëkk te foofu foofu Nous jël le temps nous étudier ce dossier ce dossier peut un an deux ans argent de poste, la lay 50 euros wala euros C'est un un ngay elle est exilée y a un muy ci à dem ba au Sénégal non non du du elle va pas mourir euh, en Europe parce que xam na ne 50 Adji vous bu fait 3 ans 4 ans je ci boppam le jël billet avez damay ñëw wax vous ma def yëpp Sonko vous ma je ma vie bu normal sinon du am du am dara c'est pas une vie une punition c'est une punition fait la même chose je leen di wax général Moussa Fall lañ ko war a c'est la pire des humiliations général c'est la pire des humiliations yow nit ki nga ah dem Touba def ben discours ah, def ku fi dal sa ki nga Macky mu la def la général jox la au dernier moment Macky Sall nga tok di dundee yakar demba xam barki demba ñu waccé la jël sa adjoint def ko chef Dak. nit ku ñu dàq c'est la pire des humiliations man def may liggéey chaque jour ma gis ñu dàq nit té buñ lay dàq dañ lay escorter tu es tu es un moins que rien sécurité day ñëw ànd ak yow dugg sa néeg xaar la ci porte bi ngay ngay ngay préparer sa bagage parce que dañuy ragal ne buñ la dakké mën nga mer am koo jam foofu noonu lañ lay def jël sa bagage génn la Général Moussa Fall dañ ko dàq mu nekk bureau dañ naan ko deux lañ la may nga génn say affaire jarotoo dara ci armée bi yow nga xam ne foo daan romb gars yi dañ lay saluer di la garder loolu humiliation la benn ñaar tiit bi ngay tiit un avenir incertain xamoo ndax Sonko da lay génnal dossier ndax da lay jàpp wala du la jàpp xamoo ndax da ngay dem sa pays incertitude boobu tamit mu lay travail dootoo mën nelaw yow dañ ne sa yaay Babacar Touré dafa ne yaayu yaayu yaayu euh, général Moussa Fall 45 jours dafa woo général Moussa Fall ko li may dégg ci yow est-ce que yaa ko def général Moussa Fall ne ko def ma ko mu ne ah loolu de boo ko defee man sa sa yaay yarewu ma la woon genre wax yooyu la ko wax cinq jours après yaay ji dee kon yaay ji stress stress bi mën na contribuer li mu dee léegi général Moussa

ñoom gàcce mi ngi leen di may xam ne général Moussa Mame mënutul dem fenn